ko lool tam daan ko dundal gan googu ñu am taw feexe mu gane siñu di weer woo xam borom bi subhanahu wa taala moo ci def defal xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay bénéfice yu bari ak ay promotion santane woon it ñu di ko ci bàyyi lekk ci bëccëg yi ak naan bàyyi def lu bon ak di ko wax bu ngoon jotee nga dog ci lekk ak naan waaye doo dog ci koor lu bon ak lu mën a doon weer woowu alhamdulilahi rabbil alamin ndax bi ñuy dugg àndoon na ak ay tiitaange waaye yàlla ci ndimbalul boppam mu may nu ñu woor ko ba seentu weeru kori sun borom it defal ñu ci ab sak ak ndam na ñun waa Cheikhuna Ahmadul Khadim. kon ñi ngi sant yalla ci may gi ñu may ñu fekke kori gi di ñaan mu mu mayat nu ñu fekke wat ko at yu bari ta at mu ñew ñu andako ak tal ak man ba man ko joxe di ci balo nyepunet, ñepp nak mo xam muy ak juñ wax ak nit wala muy àq junu jëf suñ digganteeg nit moo xam muy àqu jun yëg wala jun yëgut moo xam muy juntaay tay wala jun tayut jum ci man di doon ñoo ngi àgg suuf di tuubal borom bi subhanahu wa taala di ko tuubal kookee di ñaan yàlla nag suñ jëmmi bopp yàlla bu kenn yàlla bindal kenn bàkkaar nguur nan lu mën a doon jéggale nañ ko ñu fas yéene ànd ak yéen ci jataay bii nga xam ne Serigne Khadim Seck ak équipe télévision Touba Vision ci senu bëgg lu baax ak senu wétal Serigne Touba ak di am mbindam te yaatal am njàngaleem ci lañuy liggéey xam muy conférence yu jëm ci diine wala lu jëm ci tari alquran wala lu a doon Touba Vision am ci am solo ba tey jii mu gem fasiyene jox julit yi jox ko murid yi mooy wutal leen plateau spécial ci waxtaane Serigne Touba ci ay réalisation ñu di ci ànd nag ak sunu jarbaat di Serigne Gana mesre Maxtaar ma yëkkati kàddu cant ci turu murid yépp ak sama turu bopp di ko sant ci jataay yi weesu ak fu mu ko mën a Bumci mandi ci man di doon rek yëkkati ndamul lislaam ak wane baaxuk sëriñ Tuubaa gi rek la ci doon def mu mel ne saa yu yëkkatee kàddoom murit yëpp ay déglu waaye day mel ne murit yëpp ay wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla du jum te ñun amuñu lu ñuy sikki sàkk wala lu ñuy nattable ne yàlla da koo fayee sëriñ Moxtaar moom sëriñ Cheikh aw Balla ndax ba muy bay ci toolub lislaam di kennal sëriñ tubaa di ko wéetal am fasaaxa lool dégg arab xam wolof dib murit te man koo leeral jamono ji nga xam ne moom la ko sunu borom di teg ab nattu ngir téye ay mën a waxam nam ko daan nam ko daan waxee la ko yàlla ne dinaa la jox doom joo xam ne doomi xol lay doon la nga daan wax mu di la ko waxal fa nga daan dem di la fa demal te moo lay gën a dëppook jamono sëñ gànna di doomi sëñ maxtaar dib taalibeem dib xaritam ñoo ngi ñaan yàlla yal yàlla bàyyi ak sa xam-xam yal yàlla wéral sëw làmmiñ e, yal la yàlla dëgëral di sant bu baax sëriñ naa Mbaj e, di ko wax ne nii rek la sëriñ Mor Mbay Siise mas na maa wax ci làmmiñam na ma xasida yi sëriñ tubaay yi boo ko tiimee di ko jàng dangaa war a mel ne gone guy dox ci àll bu mu ragal ba noppi seen gaynde yar ba mu àndal ak wegel gam àndal xamal na li nga tiima ko gën a garaaw kon wegel gu mel na war a àndal ak yar bu mel noonu suñ boroom jox na la ab yar ci xasida yi jox na la ci ak wegel waaye nag loo ko gën di wagar di ko gën di wekk mu di la gën di jariñ ndax moom buy dal muy dal la tudd xasida yi buy dal muy dal waaye nag buy dal nay sell booy sell rek di gis mbóot mi di gis njariñ li kon xam naa incha allah damay bàyyi sëñ gànn mu nuyoo waxtaan wi ay laaj ak ay tontu lay doon ginnaaw bu ñu la santee ci weesu yépp ñëwal nga ñu ci daanaka taarixu sëriñ bi mokk na incha allah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 ak mbolem kilifa dine di ziyaara Cheikh Mahamadul makhtar sunu bunt ci keur borom yang ñaan yalla sunu borom yagal ko te wéral ko kilifa am alhaji mam cherno bakki di nuy mbolem julit ñep ak taalibe di len balu xaq ci bis bu mag bi nu nek tay muy bisub qualité nu di yang ci ndokkel di ñaan yalla sunu borom mu nungul jaamu di nuyu it sunu nijaay mii nu feggool di sëriñ Fallou Gala Sylla di sunu kilifa di sunu way jur ñu di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko sunu kanam te ko ndax taxawoo gi ak bijjanti ak wettili gi ak jàppale gi te lépp di jëmmi sëriñ bi rek kon noo ngi lay ñaanal yàlla sunu borom yàggal la fi te wéral la di nuyu sëriñ Cheikhouna Mbaj mi nga xam ne moom la ñu feggool moom it muy sunu wëlëre di it sunu xarit noo koy ziyaare bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla jàppale ko ñu jël nuyoo jànkatu xasaayid yëpp teg ko ci loxoom euh, waa Touba Vision noo ngi leen di ziyaare bu baax di jël nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Khadim Seck di ko jaajëfal moom it ci taxawaay bi ak liggéey bi di ko ci ñaanal yàlla sunu boroom dolli ko ci ay ndam dolli ko ci ay kattan te dëgëral ko ndax yitte ji mooy ni ko sëñ Fallou waxee léegi rek. wane njàngale ak liggéey ak taxawaayu Cheikh Ahmadou Bamba ngir doomu aadama yëpp mën cee jariñu ak xalaat yu am solo yi nga xam ne ñu koy indi ba tax tey jataay bii nu amal ko kon noo koy sant bu baax di ko ci ñaanal di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala it mu may nu ci rek ñun ñëpp li ñu ci séntu ñu am ko ci te mooy bi yëpp seen xol sedd ci jataay bi ñu am ci ngërëmu Serigne Touba loolu rek mooy sababu daje bi moo waral coono yi ñu ci daj tey nga xam ne ku gis ni ñu organiser plateau bi da jàpp ne sax ci cérémonie bu mag màggal gu mag ci lañ nekk ndax ndax yitte juñ ko jox ak taxawaay buñ ko jox di sant sëñ Mouhamadul Makhtar Diop mi nga xam ne it moom it moo dox suñu diggante ak ñoom ci wàllu communication bi di ko jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla it yàlla jàppale ko moom it taxawu ko ci barke Cheikh Amadou Bamba ak sunu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jotaay bi ñoom it ñu ñëw fekke si ko Serigne Cheikh Diagne mi toog moom it di jànkatu xasaay yi sëñ Mouhamadou Sylla kenn ku ne xam li mu féete ci ñun ak li mu yor ci wàllu liggéey bi al oustaz Jibril Sène di sunu xarit di sunu wëlëre nekk jàngalekat fële ca institut Al Azhar ba ca Géejawaay moom it di sunu wëlëre waaye sëriñ Abo Chouaïb bu mat yàlla mi toog moom it di sunu rak ak Serigne Cissé mi nga xam ne moom it gu mag di rak moom ñu di leen ziare bu baax di balu ñëpp ak di bàyyi faalu sëñ Madiba Silla mais nga xam ne moom gis nga ko moom nee lu jëm ci wàllu xéewal ak taxawaay bi Serigne Jibril Thiam nee na moo yore loolu moom nee na moom moo féetewoo bunt bi rek lu ngir mbégte mi nga xam ne am na ko ci ak taxawaay bi kon sama nijaay nu ànd ak bokk yi incha allah. jërëjëf jërëjëf sëñ Gànna jërëjëf bokki téléspectateurs yi xanaa damay sant rek mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi te sponsoré émission bi xam naa sëñ Xaadim dana ci ñëw waaye loolu lépp ngir gën a mën a yaatal ak taxawu ñi nga xam ne ñi ngi liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci waar wi mu mel ne sëñ gànna euh, sëriñ bu mag bi ubbee gi ma ciy ubbee mooy bi suñ boroom nammee ci moom lii fondation bi nga xam ne defal na ko ko du ma ñëw ci ndey ak ci baay ndax loolu àdduna xam na ko waaye ni yàlla préparé sëriñ Touba damay lancé message boobu ñëpp gëstu ci àdduna bi ku yàlla masa waajale noonu ci nim waajale sëñ Tuubaa ku ci xam kenn nga am waaye ma ne ma diw yàlla waajal na ko noonu waaye nag du ci ndey ak baay ndey ak baay moom ñëpp xam nañ ko waaye sëñ Tuubaa yan bi mu yanu sëñ Gànna ak réalisation bi nga xam ne moom la def ci at yu gàtt yi mu def ak ci xat-xat yi mu ko def ak ni mu ko réussiré ba aduna tukki du dab lola dafa am waccay wu mu laajoon te yalla wajjal ko serigne bi te nit ñi bayiwuñ ko xel moy serigne bi manam bu dee ci walu walu dekk wàllu dundu ci ay xeeti nit da ngay japp ne serigne bi ab jolof-jolof la bu mamam bayiko won fouta ñetti mam wala ñent ñu lak tu tukulor mu dund jolof maamam dëkk mbàkke baari ca jolof jeneen maamam jóge gollare ca fuuta kon sëñ tubaa ab jolof-jolof la kon lépp loo xam ne loo laal ci tukkulóor la wala pël sëñ bi xam na ko ndax da koo nàmp waaye mu juddoo bawal mu juddoo bawal màgge bawal yaroo bawal jóge bawal dem saalum kon dund na jolof dund na bawal dund na Saalum mu jóge Saalum dem jàmbur kon buñ naan diw ci weetu ak expérience xam na la Saalum Saalum yooyu dund Sëñ Tuubaa xam na ko bu dee ci wàllu expérience xam na li bawal bawal yi dund xam seen aada seen cosaan bu dee ci wàllu expérience ab jolof jolof la xam na tukkulóor yaak pël ya mu dem njàmbur dund njàmbur ca pataar ak njaañ ak ya ca aju jógewaat njàmbur ñëw kajoor dundu kajoor ci wàllu baayam kon bu fekkoon ne expérience la ci biir réew mi yàlla wan na ko réew mi yàlla wan na ko réew mi ba noppi boole kook ñoom amu ci fenn foo xam da leen di dégg da leen a dund bi mu leen dundee ba noppi yàlla wooteeloo ko ay doomi soxna wuysu ko mu jaxasoog sëñ daara yi jaxasoog doomi soxna yi xàmmee leen ay ceddo wuysu ko mu jaxasoog ceddo yi xàmmee leen kon dund na dund na réew mi waaye dund na xeeti réew mi xeet yi xeet yi saalum-saalum yi pël yi tukkulóor yi wolof yi ajoor yi njaambur njaambur yi ak kajoor kajoor yi ñëpp sëñ Tuubaa dund na leen kon expérience boobu xam na ko ba pare te bi mu koy xam doona gut mag mu jaxasoo ak doomi soxna yi dund ak ñoom bokk ak ñoomi daara ba dund leen xam réalité bi ne ci doomi soxna dëgg mu jaxasoog ceddo yi ba dund ceddo yi ñoomit xam seeni néegam señ mbacke mor ñëw ba tolok neeg bi japp ne sax señ bi genn mo diko wax nak sama doom ji nang ko ñaanal di wax ci mom melaw yim setlu ci mom ak bax geek deud aduna geek yitte jeek yépp mu ñaanal ko ñaan gu yaatu fam ne taxaw ci buntu neeg ba ñaanal ko te bobu señ baangi ci biir wul sax waye way juroom terna joxe misal ci ki fi nek ku bi doon lolu bi diko dox di deg lolu ci kanam di ko gis ci kanam juróom di gis it ni sëñ di jaxasoo ak wuuri àdduna yi di leen atteel ba noppi te teewul mu téye daaraam téye diineem nga xam ne benn buur bu mas a bokkal ab pays amul boo dëkkee ci béréb bii day dem dëkk ca beneen bërëb ba soreeg yow bu atte jotee mu ñëw atte si la mu gis ko ni mu nekk ki kilifa jaboot lépp daje ci moom mu nekk ci ron way juróom woowu di dund loola waaye ci biir kanam way juróom woowee la tàmbali defee effort bu dee ci xam-xam fu dara nekk mu di ko wër waaye jëfandikoo xam-xam boo xam ne may na ko mu teel a taalif ay téere sax ci kanam way juróom ngir kawe xam-xamam waaye kawe yitteem ju rëy ci waxtu ndawam la rassemblé yii benn naar doon wax ne ko ci sa jamonoy ndaw daal ñeent daje fi yow muy dëddu adduna ak jaamu yàlla ak jàng ak jàngale nga xam ne dafa teel a adapté wu ci loolu rek wan ginnaaw adduna bàyyi ginnaaw ñooñ adduna yut lu wut ci xam-xam nekk mu nekk yitteem ndax kii defaree na xam ne yoon wi muy jëkk a jaar pour mën a tàggat nit ñi mooy xam-xam loolu tax sëñ bi moom am yitte yi rek xam-xam di di yitte gis nga ko fa jultu baytal ulama wal awliya foolem fu wàlli yu nekk boroom xam-xam nekk fa sëñ bi wër ko di fa di fa dem bi muy am at yu néew ci jikko yu sell yi nekk ci moom way juróom yi nga xam ne ñoo nekkoon ay kilifaam sax xemmeem na ay meloom ba doy leen ci ba seen jëmm ñu mën koo bàyyee sëñ bi sëñ bi doy leen ci seen bopp loola li tax mooy melawu wu yaatu bi nga xam ne yàlla def na ko ci jëmmi Cheikhul Khadim ak doxinu sell bi nga xam ne am na ko loolu moo tax bi mu amee jotee ndigal ci mën a defar nga xam ne donn na yëpp xam nga sëñ Tuuba dafa donn mbooleem ko yàlla joxoon cirug ngay defare waaw daf ko joxoon may sëriñ sépp ni mu jox ko li jutta bi tamkiini war rusuuxi wa hëbta lii mawaahibu shuyuuxi wiraasatan minka ilayya lil jinaan wali siwaay yantahi dayqu sama kon suñ borom moo ko may may sëriñ sa nga xam ne li ko sëñ Moussa Ka di wax yaa di Malik di Shafii di Anbal nga xam dafa donn borom aima yëpp njiit yi yooyu madahib yi mu donn leen ba noppi donn gaañu baax ña kon donn googu mu leen donn ba dajale melo yu rëy yooyu nekk ci moom sun borom tàggat ko may ko xam-xam boo xam ne it nekkul xam-xam bu nit di jàng waaye dafa nekk nag lu ñuy tuddee ilmu ladunniyi nga xam ne wahabali ilman lam yakun min a taallumi wa jaani bikum may na ma xam-xam boo xam ne kenn du ko jàng waaye ci suñ boroom lay lay bàyyi ko mu ñëw mu ñëw ci moom mu jël ko ba ca toppit ba tax mu mën a doxele wow doxil mooy boromam subhanahu wa taala tàggatal ko boppam xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam li tax mu nekkoon yaraakoon bu mën a yore mooy yàllaa ko yar adabani rabbi fa ahsana taadibi yàlla yar na ma rafetal sama yar sëñ Tuubaa wax ne yàllaa ko yar rabbaaniya naafiyol waxaabu ashkuruhu maa dumtu xayyan bi xawli alhamdulillah kon moom wa waajtaay wu dëgër la am ci melo yépp ba noppi it jëmmi noon yi gàllankoor doomu aadama ba tax du mën a yegg noon yooyu sëñ Tuubaa éliminé yépp muy bakkan muy bànneex muy àdduna muy seytaane bakkanam dafa bañ ba ñaan boroomam na ko sama bakkan notal ma ko bànneex bi nit di yëg mu ñaan boromam na ko am mit hawaaya maanaam rayal sama bànneex bu ma am bànneex waaw da koo raylu moom am mit hawaaya rayal sama bànneex nga xam ne amul bànneex fan la bànneexam lu jëm xawa nan taxa lil xaq wal xaq diinu naa bi iqdaami si rushin wala kullu xam ne léegi bànneexam moom ci li muy jëm mooy jëm ci lu neex yàlla jëm ci yonente bi alayhi salatu salaam amatul lool mu fexe ba seytaane mu xeex ak moom ba not ko ba seytaane xam ne amatul benn bunt bu mu ko mën a jaar mu des àdduna mu won ko ginnaaw bàyyi koog mboolem éléments yu àddunaam au lieu que sëñ bi moom dem bay sàkkoo mucc ci àdduna léegi àdduna moom moo moo naan nu may def ba mucc sëñ Tuubaa nga xam ne ko ñeent yëpp la rassemblé neel fa nafs wal xalq wa seytaanu xat faraxu min xas di duriya lii dum de taxat salama kon mucc na ci ñeent ñeent ñeent yooyu jot na ndigalul boromam subhanahu wa taala mu boole ñeenti ñeenti ñeenti melo yu yëpp ñetti melo yu sëriñ yëpp mu daje ci moom xam nga dafa am benn naaru gànnaar boo xam ne yenn bokki boroom xam-xam yi dañoo mas a toog fi moom di wax ne baatu cheikh fekk dañoo ñëw na Ahmadou Bamba mu ne leen ama Ahmadou yan ba yan ba ay yaalu bil xasaniya mu ne leen mooy Ahmadou yan ba daal ne leen baatu cheikh ñetti araf moo ko composé muy chiin yaa xaa mu ne chaakilul niamila yamuru bil maaruf yanha anil munkar xaaifun min la daan na ci lu dog nag yett yii moo daje sëriñ bi nag mu nekkoon baatu cheikh du lu ñuy tekki rek naan cheikh cheikh cheikh mu ne waaye ndekke mooy kiy sant xéewalu yàlla gi fu mu toll kiy digle aw yiw te tereb safaan waaye ragal nag ci naagu ci pexem borom bi subhanahu wa taala mu ne ñett yooyu nag dafa daje ci ci sëriñ bi moo tax bi bi yooyu dajee ci sëñ bi nag mu nek sayxu taxlim dàq jangal ñep dàq jangal ñep ndax loolu man nga ko xamé ci bi mi nek ci daaray bayam Serigne Mbacke Mor Anta Sali ñëwagul Mbacke Kajoor nek Patar amna ci mag ñi ñoo xam ak mën a ma taxon ñu bayyi fa nekkon ñew ci daaray Serigne Mbacke mo man nga wax Cheikh Ibrahima sar man nga wax Cheikh Massamba Diop Sam li leen andi won moy mu tëraleen leen aw bind loola tab ci seen biir xol bañ bayyi ko won fan nekkon ngir ñew kon sayxu taxlim dàq jàngale ñep mana yare defal ni tagat ko ci fexe ba not loo ko bakkanam am riyaadu min euh, minhaaju riyaada boo xam ne méthode bi mu doon yare caaw doxin ci tërbiya nit nga xam ne bokkuluk tarixee gi di ko yéege mooy fexe ba doomu aadama ñëw am melow ne ci moom sëñ bi mën koo tàggat mën koo defar mën a fekk ku suufe li sëñ Muusa Ka radiyallahu taala di wax ne di ko jàngale yaay fekk ku ñëpp xeeboon ni cosaanam nga xam ne kenn faalewu ko woon ngir ak suufe nga safoo ko yow fal ko doo ca yam boo ko boolee loola nag ñëppay maase mujj faale ko ngir melawoo waaye fekk koo xam ne it day day day day ñàkk jàng nga yar ko defar ko ba buy pratiquer diine moo ki jàng diine ba jeexal ko ñoo yam fa kam jaahilin allamtahu wa hadaytahu fa saara mutian la fi l amri aka bari koo xam ne dafa réer yaa ko jàngal ci tomb waaye bari koo xam ne bakkaar da koo gënd bam naagu ci boppam xam nga sëñ Tuubaa fekku rek ku mën a julli ak ku mën a woor mu dee la defar waaye fa kam zalimin wal wasra anqada zahrahu fa lamma ataka sara addan bila wasar fekk koo xam ne ab tooñkat la bakkaar yi gënd ko wet ku ne mu ñëw taqoog yow nga tàggat ko ba mu tàggoog taqinoo waaye fa kam muzni Tuubaa genn buum lay wombate menn mbedd lay sole buum gi ragal yàlla la ñent ñeema la waxoon muy bakkan ak banex aduna ak seytaane duñ dogale ku sëñ Tuubaa yan duñ ko dogale motax sa yoy yeggé ca ca yan bobu nak bok ko yono ba egg fa nga jëmit day am yent yu la fa fekkat loloy waré yi daje ci ci ci ceew lolo tax Cheikh ibrahim djub al mashari wahda man za haqqan bihi tatihi arbaatun fawzun وغفر ولدوان واسرار من لا سحقا لوحنا كوير كموم تمي دق كون فاز مريد قاده الله الى تعلق بي ويحظى بالاله كل مريد بي يلوس يزعت وانه من الاذى مبعد ومن لا حقا به تاتيه اربعه سايو ويكو تموم تويكو كدي دق ينت دنا لديك بيتا ديك موي فوز موي تخي بيتا توك موي ngeureumul yàlla ba ca tek moy mbóoti yàlla ba ca top modi leral bu la ko duyeele nag ba nga ne ngeen ci dem nak wa zaayalatu ala al a'da'i arbaatu suun dalaalun wa ikhwa'un wa gharab motax men magum seigne touba mu aduna fakasal du am wala banex wala bakkan boko yano ba yegg nak bané fax wa kana min fadli al karim lahu mayrun wa khayrun wan weerun wasireeru moy waral ku joxe won mbam ñu jox la kat-kat ku bayon ben tol mbolo di la liggéeyal sa keur di rir ñuy liggey di la jox mayrun wa xëyrun wa anwarun wa barke bi ne fi li ko waral moy aduna me ak banex ak shaytan mi yakal, yak da la dut meuna yakal ndax mom li nga yor da ngay xam lim doon non la la sëñ Tuubaa di jëkk refere tagal gogum lay tagal nak jëmale ci sun borom ci melo yoyu ngir nga meuna dox yalla kese joju mu la jëmee te woote ji looloo tax bi muy tàggat nit ñi mu xam ne benn noon bu ci nekk am na gànnaay gu muy songe moom sëñ Tuubaa day day day day bi nga xam ne képp ku bi ci biir loppitaalam mu dugal la ci laboratoire bi ñu consulter la xool sa mbir bu génnee résultat bi dana xam tawat ju la dal te moom bu xamee tawat ji la dal ba noppi day xam nag saafara si koy saafar bu la bindalee ordonnance bi nga mën ko am ndax forme say de lii baa ngi fi da ngay daal di dem mu xam ne doomu aadama kaa inul mu rabbi bi dafa mën xool doomu aadama dafa lu ko composé ñaar ki niy defar dañ ko bind ci ban bind ko ci ruux ki bokk ci aalamu suuf la ki bokk ci aalamu ulya mu amee muraad dafa ak xol bi mu mel ni oto motoor bi mooy mooy mooy xol bi waaye organes yi faw mu baax ñu war koo tàggat tàggat googu nag organ yi ni tàggat moom la Sëñ Tuubaa xam mu xam ne bakkan dafa bari ay àndandoo waaye moom benn gànnaay dong la am mooy boo reggee mu fàtte loola yàlla gëmmint loola tayeel loola nelaw loola Sëñ Tuubaa indi xiif contrecarré ko indi xiif nga boole liggéey ba ngoon am nga bu pepp wala korkorub cere te yëg yàlla gi nga yëg laal xoolal gis nga loolu xam nga kañ nga koy xam aduna science dem na ba andi nit dana tëdd ci lalub hôpital ñu ne bu mu lekk waaye biteel la sampal ci la lek geek naan gi ne ci yow nga diko yek te do lek naka leeru yalla gogu la la bi jam ba do yëg nga xamne do am tap lek te yaangi lek nak leeru yalla gi ngay dundé profession bi ñew ci tabbi ci yow mo lay dundal nga am leeru yalla gogu muy katan gogu moy tax nga man nak tagat bakkan bobu ba ba ba ba man ko éliminer shaytané sàggan lay songe muy rëb la mu fexe ba doo am jot même bi mu taalifagul xasaayid yi di nga xam ne yëkkati xasida yi tàmbaleegul booba sikar la ñuy def bari lu ñuy jàng alxuraan ak lu ñuy sikkar mu dee leen ko def loo ndax dafa wax ne yoon wi gën euh, li gën ci li murit bi di di yóbbaloo mooy mu fexe ba di di tudd yàlla borom bi subhaanahu wa taala mooy mooy mooy aliment bi nga xam ne moo gën a mën a dundal ab jaam ci lamuy muy dund mu man ko am ak lamuy muy jaar mu man ko xam loolu sëriñ bi jàngale ci melow jëkk woowu ba ca topp muy bànneex bànneex wax ju bari joomul njariñ lay songe mu di leen noppiloo di leen noppiloo nga xam ne nit daana xëy di liggéey ba ngoon sëriñ bi laaj la ci liggéey bi nga doon liggéey suba ba ngoon wala ñaata baat nga fi wax ngir fexe ba bëggul nga wax ci ay ay nen ba ci topp it mooy mooy àdduna beru looloo tax sëñ Tuubaa fu mu mas a ab diir bu gàtt mu bàyyi ko ca béréb booba dem feneen nga xam ne ñeenti noonu yi gànnaay naa la sëñ Tuubaa am moo tax boo demee ci xoqal bu ko bi muy leeral arkaanu bayti jamil xaw arbaatun biyaa yu assasu wiliya bunyaanul wilayat sumtun wa juun tawilun baxdahu zahar wa usdatun an shuyuqin bil isharat mu ñeent yooyu nga xam ne mooy gunge nit ki ngir fa mën a jëm mu jëm bu boobaa nag moom mi nga xam ne mooy defare day am ñett yu daje ci moom dana ci moom mooy ru'yatu tazidu fil amal boo ne ko jàkk rek sa pas-pas yokk sa pas yéen sëñ Tuubaa ku ko mës a séen rek branche lewu nga ci yàlla boo ko ne jàkk rek yéeg yàlla mu dolli la yitte waaye xitaabuhu tanmiyatu lil xool foo ma sa déggee foo ma sa kàddu sëñ Tuubaa muy dal ni garab gu ñuy roose di def muy naat di yokk ni la sa yittee ak sa melo di yokki jëm ci borom bi waaye mu xaalatatuhu mooy loo gën a jaxasoog moom nag leeru yàlla di gën tàbbi ko ci yow ngay gën a yëg taf nga xam ne dangay dégg ba yàgg ngay gis ba yàgg ngay yëg ba yàgg ngay laal moo tax Cheikh Ibrahima Diop nag fa kam rijaalin ila maulaka qad wasalu bi nurika ya maula mawlal muridin bari wana murid yu yag gor yalla yu yag ci sen borom li len taxay yag ci yalla lan la moy ci sa bëbb gi lañuy ñuy naan ci sa leer gi lañuy ñuy naan yii wala ngaan ñuko rotan diko di mom mi nga xamne mo len di defalit mu fexé ba bim len éliminer les yoy ba nopi mu kasse ko ba dara lu ci dindikuwaat wat motax ci bir kërëm ngay fekk ñu ne la diw day naafila kaamilu alxuraan ñaari rakan diw day naafila téeméeri rakan ci biir këram ngay dégg ñu ne la diw daawul naan meew ci biir këram ngay dégg ñu ne diw bu gëmmentoo jël kaani def ci ay gëtam ci biir këram ngay gis ku mën a fàtte lépp lu mën a am ngir jëmi sëriñ bi te li ci gën a yéeme mooy moom mi leen di tàggat fi ne lu waay baax baax léegi-léeg nga ñëw dégg ñu ne sëñ bi day dallu amul men mag mo la moy moy gëstu ban ne bi sangam bam ñewé di sét señ bi ñu ne señ bi day dal wala may ko lay xewlu ba nopi ngeen gisi amut señ bi day dal amut dem dalu ju manam bu ma saa genn ci guddi gi tafar tafaram joju muy def ba ba ba ak njaxlaf gi fu mu sanni der kabar day muju kim andal mo nan ko doxal tëri bu ne la doxal tëri nga seen ko muy wëy dañ ni bi rir fum taxaw yeesal njàpp sànni ka kabar ñaar rakk yu ne 45 minutes kër kër yi rek kër kër yi rek yow mi yow mi yaay yëg ne yow sonn nga waaye moom du du sonn loolu mas na laaj sëñ Mourao Ball ak maam Thierno bis sëñ Mourao Ball mooy bi borom daru ñëwee njaareem te fekk booba néeg bi ak basang ne fi borom daru nu nguta tëdd ci lal bi ci basang li tëdd sëñ Mourou tëdd ci ruum bi te fel yi dafa bari matt yeeg ak yooyu ba tax dallu ba ñu xëyee ci ëllëg si nag sëñ bi mooy at wargaal boppam sëñ Modou ngi tëdd nii sëñ Modou Ball borom daaroo ngi nii sëñ bi xeelee na ko moo demal wala ma Masamba Masamba nee mu dem waaye la ko mu ñëw sëñ bi daal na ko sëñ Modou di nelaw sëñ bi laaj daal na ko daal bi mu laaj sëñ bi na ko ah Modou nooy nelawee sëñ Modou Ball nooy nelawee mu ne ko bu ma jullee gee naafi la léegi léegi dallu ba ba fajar nga jublu ci lan nag mu ne borom daaru nooy nooy nooy nooy dalloo borom daaru na ko bu ma jullee fajar ma julee gee def samay nawaafil def samay rawaraat guddi gi xaaj ma dallu tuuti njël jóg ma jóg mu ne ko yar bu jëkk ba bu njëkk ba sëñ bi gestu keneen laaj ko nooy nelawe mu wax ko ko mu ne ko loo jublu mu bëgg a wax sëñ muur na ko defal ne man waxal li ma wax rek mooy yaakaar la rek waaye ku ma sa bokkal yoonu jëm ci yàlla yaay des ginnaaw waaye moom mosu caa des ginnaaw moo tax ab ñoddi bi mu lay ñoddi ak tàggat gi mu tàggat gaaw ndax bari nañu bi ñuy ñëw ci sëñ bi egg nañ ci suñ borom ci dayoo boo xam ne kenn xamul lu mu toll ndax ki egg ci di deeyaale ak borom di dégg deeyaale ak malaayika man ngaa tudd sëñ Ahmadou Fadiama ko sëñ bi ne Ahmadou kaay jaayante lu ko wax lu may dox di jaayante man nag malaaka yi bu ñuy deeyaale dinaa ko dégg mu ne ko lu am soloo ngi noonu déggub deeyaale waaye fekk jataay baa gën a wóor te jébbuloo koy mayee nag fekk jataay bokk ci ba mu jëlee boppam jox ko xoolal la mu yor ci xam-xam ak teraanga ak ak ak wilaaya ga lu ko sëñ bi wax ma tas la takkaat la wala ma cuut la mooy supprimer li fi yow lépp kon sëñ bi nekke dana fekk dara ci mbir mu dindi ko ba mu set def ci leneen am na ci mag ñoo xam ne bu ñëwee ci moom danaa leen ndab yu soppi la sotti la xéewlu rek a ci des ndab lu sotti la xéewlu rek a ci des tàggat googu mu leen doon tàggat nag ci tudd yàlla di leen tàggat ci jëme leen ci yàlla di leen xemmem loolu li li lim nekk looloo taxoon mag ñëpp ci defaru gi ñuy defaru ñu teel a seen teel a bëtt seen gëti xol teel a defar seeni xol bañ teel a yéeg nga xam ne mel na magum sëñ Tuubaa mu nekk da ngay dégg ñu ne kii nangam la def kii nangam la def kii nangam la def waaye kenn ku ci nekk boo ñëwee te li gën a yéeme mooy kum ci giseel ci ruq kenn ku nekk boo fa génnee da ngay jàpp ne li yoroon yow képp la ko jox te dee su ko miin ba tax nga càkkalaar wala dara foo ko gën a gis muy gën a saf yàlla Sëñ Tuubaa mooy koo xam ne ku ko masa a gis loo ko gën a gis mu lay mu lay woon yàlla looloo taxoon nag yoonu defar wii mu doon defare mën a gaaw ba tax li mën a defar bali Sëñ Fallu macha allah macha allah laaj bu njëkk bi am na solo lool sëñ Gànna ci tontu li xam nga dañoo toll ci jamono joo xam ne dañuy wax ne waxtaan ci Serigne Touba ak waxtaane Serigne tubaa day ñaari baat yu bokkut dañuy waxtaan ci sëñ loolu moom ëskey mën naa bari waaye boo waxtaanee sëriñ Touba ab yaree dolliku ak ragal dolliku ak yéeg jëm ci yàlla dolliku loolu mooy waxtaanee sëñ moo tax ñu tànnoon sëñ Touba ak mën a defareem ndakate ki bëgg a defare balaa tàmbalee defare daa war a njëkk a defaru moom te booy defaru sag ruu du defaru bàyyi sab xol sam xol du defaru bàyyi sam xel sam xel du defaru bàyyi say cër ndax ruux moom rek mooy dem ci yàlla ruux waaye ruux su rootee ci yàlla ci xol la koy sotti kon waris naa defar xol ba leeru yàlla gii ñëw ndax yàlla buy seet boppam ci nit sax ci xolam la koy seet kon xol mooy ndab li dañ ko war a setal ba mu set ba bu ruux roté ci yàlla bu ñëwé man ko sotti ci xol xol man ko tata waye ndakate xol su tata né léruk yàlla daf koy def ci xel xel moy tiwo bi koy branche la ci ay cër cër mëna jaamu yàlla kon sëriñ bi bimu daan tarbiya da daan defar xolub nit ki defar am xelam defal ak ruham defar ay cëram loolu moo tax nga ñëw ci ni mu qualifié ci defar nit ci wàllu soo ñëwee ci daara ji doon koo xam ne ku tayal nga sëriñ bi daf lay dugal ci wàllu liggéey dootoo noppalu soo dee ku bëgg lekk mu di la xiifloo boo dee ku bari ay nelaw mu di la naafila loo te la tuddloo yàlla soo dee ku bari ay wax mu lay jàngaloo alxuraan kon moom maanaam mbooleem médicament bu war a mën a faj doomu aadama ci ñeentam yi ma la limal baa am na ko waaye bi mu ko daataaka am daf ko wuti daf ko wuti ba mu nekk ci moom moo tax ak ndawam ngay wax ne daana dégg ci làmmiñu way juram di soxna jaaratullahi bu buso mu naan ko bokk na ci cëri gaa yi yàlla yi daan taxaw ba guddi daan fanaanee taxaw mu teel koo tàmbali ci ay juróom-ñaari atam loolu kon ak teel yëg yàlla ak teel a yittiwoo yàlla ak teel wuti yàlla la mu mel na it loolu nga wax ne sëriñ bi dafee fekk ñoo xam ne ban ñëwee dañaan leen ma tas takkaat wala ma sotti duyaat walla ñoo xam ne daan leen noppi na tàngalaat rek ci des wala jëfandikoo ci des boo ci andee ku mel ne sëñ Adama Guèye andi ci ku mel ne sëñ Ibrahima Sarr Njaañ tudd nga ko am ci ku mel ne sëñ Massamba Diop Samb ñoom ànd na ak sëñ Mbàkke Mor Anta waaye bi ñuy ànd ak sëñ Touba sëñ Ibrahima Sarr Njaañ njàmbur la xëyee njàmbur la xëyee ñëw ñëw mbaabu ci kajoor fekk sëñ Adama Gueye mu def xaritam sëñ Touba nekk ci kër sëñ Mbacke moor Anta Sali di ñëw tey ba daqaar di fekk tafsir Mandoumbe Maar léeg-léeg mu ñëw ci ab yónneen léeg-léeg mu ñëw tëral lu bind sëñ Adama Gueye di ko gis mu def xaritam mu di ko gunge tey ba Dakar su ko yóbbuwaatee ba Mbacke Kajoor mu dellusiwaat mbaabu moom nekk waaye bëgganteeg sëñ Touba def xaritam sëñ Ibrahima Sarr Ndiagne jógee Njàmbur dikk gis sëñ Adama Gueye na ko njool mu ne ko mu ne ko labay ko mu ne ko lu la tax li ma tax a jóg mooy lu li doomi soxnaay xam-xam naa ko léegi nag li ma bëgg mooy ngërëmul yàlla ku ma àggale ci yàlla rek ma tax a jóg moo tax sëriñ Tuubaa wax ci làmmiñu boppam ne bi may feeñ di waaj a ñëw jamono mbooleem xol yi nit yàlla yi yëg nañ ma ni suuf di yëge ab nawet buy bëgg a wàcc mbooleem xol yi bëgg a dem ci yàlla yëg nañ ma ni suuf di yëge bàq buy bëgg a to buy bëgg a sotte moo tax sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye ne sëñ Adama Gueye kun àggale ku ma àggale ci yàlla lay wut mu ne ko dañuy ànd wut ko fu ñu ko gisee ñun ñaar toog fa waaye nag am na doomi mbakki mo suñ mbakki mor anta sali juy jaar fii ju tudd Ahmadou Bamba di dem tey ba Dakar moom day seetlu naa ko gis ci moom ak ragal yàlla akuk ku goo xam ne dangay bàyyi ba ñëw ñu xoolandool ko suñu bopp ndax dana fi jaar te maa koy gunge kon mag ñi bi ñuy ñëw ci sëñ Tuubaa àgg ci yàllaa leen tax a jóg waaye jaamu yàlla taxatu leen a jóg jàngoon nan jaamu yàlla ba xam ko loolu ci la sëñ bi wax ci la sëñ Adama Gueye waxee na bi sëñ Ibrahima Sarr Ndiagne ñëwee ñu gunge sëñ Tuubaa tey ba Dakar ba mu génn ñu àndandoog moom ba ñëw tollook àll bi sëñ Adama Gueye def na sëñ Touba kii de Ibrahima saar la tudd sama wëllëree njàmbur la dëkk li ko fi tax a ñëw nag na ko waxal boppam sëñ Ibrahima Sarr na ko doomi daaray daaray doomi soxna yépp jaar naa ci yu bari li ma tax xamit xam naa ci lu bari li ma tax a jóg nag mooy ku àgg te yàlla ci yóbbu ma ci ku àgg yàlla ci yóbbu ma ci nee na sëriñ bee ko wax ci làmmiñam te booba wooteegut sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ngi dund loolu de jébbaloo koy maye nee na sëñ Adama na ko nu nuy jébbuloo sëñ tubaa wax leen baat yi sëñ Ibrahima Sarr Njaañ dindi mbalaan même la woon lalal ko sëñ tubaa sëñ tubaa toog sëñ Adama ngay jaayante sëñ Ibrahima saar Njaañ jaayante na ko nag dañuy ànd ak yow foo jëmatuñu jëm mu ne leen damaa ne ci damay surgab jàmbur ñu ne ko ñuy sëb surga mu ne kon ngeen di surgab surgab ku am njaatige ngeen di surgab surgab ku am njaatige ñu ànd doog moom ñëw ci daara sëñ Mbàkke Mor sëñ Mbàkke Mor Anta Sali nekk nañ ci daara ji sëñ Massamba Diop Sam sëñ Ibrahima saar Ndiagne sëñ aadama Guèye di tëral lu bind te jox nañ seen bopp sëñ Tuubaa te kenn yëgu kon mag ñi sëñ Gànna àgg ci yàlla laa leen taxoon na ñëw waaye la leen taxul leen a mën ñëw mu mel ne nag ñi agsi woon di wut yàlla li gën a yéeme mooy ku àggut yàlla amu ci te man bëgg naa nga ñëwaat ci tuuti ci tuddal ma mag ñi par benn ndax defar gi faaw nga joxe exemple doone sëñ Tuubaa sëñ mu saaka day wax ne ngërëmul yàlla ak murit buy daw araamun ku man na ko def si su ko xam nga soo dégg naa ngay wax ci plateau bi weesu sëñ Tuubaa julli ci géej gi nga dégg ku yoru làmmiñam mais géej gaa ngi nii der yaa ngi nii penku baa ngi nii maa ngi ñaanal bu baax sëñ Aliou njaay dëkk fii ci Mbàkke Bawol yàlla yàlla doole ay leeram ci biir weeru koor wi la génn àdduna toog naa ci këram mu nettali ma ko xam sëñ Abdou xam ko daana dawalal sëñ Abdou Lahad nee na ma 1960 wala 63 bi sëñ Abdou Lahad sëñ Fallou yónni sëñ Abdou Lahad Côte d'Ivoire ñoom ñaar a ànd nee na moo ànd ak sëñ Abdou Lahad sëñ Fallou yónni leen fa ba sëñ Abdou Lahad doxee yónni ba ba boole woon na leen ak ñeneen ñooñu sëñ Abdou Lahad da leen a daggal bee saxaar na leen dellu leen na Aliou Ndiaye jëlal ma loo ci bato ci laay jaar damay dellu Sénégal nee na ñu dugg bato Baye Aliou Ndiaye nee na sëñ Abdou ci biir bato bi. liminat bu wex dal la xamne waxtu wu ne wala ñaari waxtu dana mën a Aliou Ndiaye laajal ma ba xam am nañ liminaat bu wex wala déet ma jëndal ko liminat la gessal mu nan ko neena waye leg leg mu mun ñokketi ci bato bi ñëw yër geej ji del ci wat ci fim togon togat di yorum jàngam di jàng leg ma Aliou Ndiaye mu ne ko mbàkke mu ne ndax am liminat bu neex am na fi neena bam yag mu tegale ko nak ci wenn waxtu wo xamne nan na ci lu man ñetti butel ba ñent waye bërët bërët jimi def di dem ci xol ndox mi del ci wat tiitloo na ma ba ma ne sa yëpp laat mii xelam daa demoon ci sëñ Tuubaa mi juróon ci géej su ba yeexee lay mu tàbbi ci ndox bi nee na bu jógatee ma jóg topp ci moom waaye nee na wallahi alazim sëñ Ablaat da ko yónnee ma Aliou Ndiaye dawsil ma ñëw mu dóor moom xët na ma fii la sëñ Tuubaa julli woon nee na ma xool ko ci biir géej mu xool ko coy nab der kon julli ci géej gi nit ñi mën nañ koy wedd waaye ku mën na ko def sëñ Tuubaa li ko topp ci ay seex boo ci bi ber mu mat boo ci ber mu mat ab tarixa seex boo ci ber ak i dongaam mu mat ab tarixa waaye ñoom ñëpp dañoo jugoo woon ngir bëgg àgg ci yàlla ay doomi baayam na ko dañoo bëgg àgg ci yàlla ay baayam na ko dañoo bëgg ci àgg ci yàlla ay jàmbur na ko dañoo bëgg àgg ci yàlla kii jógee njàmbur kii jóge kajoor kii jóge bawal kii jóge saalum kii jóge fuuta ñoom ñëpp ñu del siwaat mu àggale leen ci yàlla ba noppi na leen del leen fa ngeen dëkkoon bu kenn jaawaloo kii jóge woon njàmbur bu mu dem saalum ki jóge woon saalum bu mu dem fu bu dem bawal ma bëggoon a ñëw ci benn benn yi ko njëkk a wuy si doon wut yàlla te feesoon dell ak xam-xam nga xam ne ñoom bi ñuy ñëw xamal nañ seen bopp ne sëñ tubaa am nañ xam-xam sëñ tubaa dindi loola àggale leen ci yàlla laa bëggoon nga dundal ma ci donte da nga ma cee limal juróom juróom benn bañ xam ne defarug sëñ gi da ngay duut baaraam waaye du lay wax di bàyyi jërëjëf sëñ Fallou xam nga defar gi ñim defar ñoo ko wax sëñ Mbacke bu radiyallahu taala anhu عنه هو القوس والمقياس ربى قلوبنا واجسامنا فالكل صافي ونائم لان سيغ بي دا ديفر سوني خول ديفر سوني جيم بان جاك وكو غيس تي نو نك مون تخ جاك ديفرو غوت خمغا خم خم موم وسيله لا وايي دو غايه خم خم وسيله لا وايي دو غايه غايه غي موي يغ تي يالا تربيه غي مو في يوبليت xam nga dañ ne boo amee xam-xam ba noppi wa baad yasluku in ramal wusul ala yadi mukammilin yaxfuru rasul nit ki xam-xamub kese taxul a egg ci yàlla faaw nga am seyqu murabbi bu lay tàggat loolu tax ku ñu daan wax abul yasid al busami abu saïd al xaarimi ak abu alay dahaq waxoon nañ ci sifatul awliya wax ne nit ki lu xam-xamam bari bari du tee na amub sëriñ te bàyyi diingat te bàyyi diingat ndax lawhul mahfuz amna ñet témir lawha ak juróom bel fuk te umul kitab bokk te amna ci awliya allah yo ño xamne suñu borom leen jàngal kon yow mi sa xam-xam egg jam ci ay feggu bokkul ak ki xam-xamam egg ci lawhul mahfuz lolo tax defare gogu serigne bi doon defar serigne bi wax ne man talabal wusul lil jalil fal ya'tasim bi sunnati rasul bi an yulazima muti'an la yamir fi dhahir wa batin an sabil يقوده بالعلم والعباده كما يربيه بترك عاد كم كم بي بينكو امي كي بولي جيفيكو تا موي جامو يالا باي باي عاده باي عاده موي لو جويوك دينه دا بايكو موتاخ سيني باكي ني سيني بي دا فا ليفر سوني خول موتاخ ماغني تاواتي خول ييب امونوكو تا ان في الجسد ان في الجسد مضخه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت fasal jasadu kul ala wajhil qalb ci biir xol am na dynamo bi ci nekk boo xam ne bu baaxee lépp baax bu yàqoo lépp yàqu te mooy xol xol boobu nag la sëñ Tuubaa defar ba mag ñi ñàkk loola li tax xam-xam bi du doy mooy lam la leeral ci xeet fa fil ulumi maa yuqasil qalba wa yujibul kibro wa yunsi rabba am na ci xam-xam yu yooloo xol di fàttaloo nit ki yàlla kon xam-xam wasiila la waaye du xaaya ñooñu mu defar moo tax boo seetloo ñi doon ñëw ci moom ku ñëw da ngay ñëw wax li la indi maanaam te kenn du ci wax adduna kenn du ci wax bànneex kenn du ci wax bakkar ngërëmul yàlla rek moom la ñuy sàkku xiraaya fawzun wa ridwanun wa takrimat wa aafiyatu daaraniya wa sari loolu sëñ Mouhamadou Lamine gay jëm mooy moom la xoon sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jëm mooy ci dix premiers yi la bokk fukk yi jëkk jaayante waaw ñëw jàmmaarloog sëñ bi di ko wax kim doon مني سلام كياقوت او الدرر بل فاق ضرا وياقوت كالقمر الى التي سار عبد الله قادمه شيخي ملاسي قياسي من قضى وتري هذا زيارتنا يا روضة القطباء يا قدوة العلماء يا ملجأ البصر خيرا يا فوز والوان نيونا نك لما اندي سمان برني نب لما بغي نغا تيغال مكو غانغي موي غرمول يالا موي اك تخي جامي تيك الله نكو نك مان غوكو نك تاخ مان مان كو موي نفعت جيلك هم وآخرتهم جدت دينا بلا سيف ولا زمر جارين سي كم جارين ساو خير أدنى الآخرة يزل دين بنوب تبوتي وقبر مدوك جموي سنت رؤسا جاي بمني ميلم بخ تيمي راكلا دانا فيلا دانا دخل سيارة جي سوبي بقى خبن سايوكو سيارة دالاي ومات جميل جي تردنغي يغنيلو زوري الحبيب الذي يقول زائله الى طريق النجاه والكرامات انك كوكوم دون نك يو دارو اسن ياغي جو جوخاني رك دمال سيتي واجا بولي مي مومو مون ساكل بكيو لسيل بالي فضله على كثير من هاز المسيات مون كوكو نك موي امرو دام ميغا خامنا الباري فضله على كثير من هاز المزيات مولم غايو باخي لامبو غني لك باخ يالا كو تان جيتال لين مو غن كو نكو مان نك دارو اسن لما تاخا نيو نك ويسو غرمول يالا sen mi ne ko fala tasal fi tuqa warus di mujtahida kay laa yulaaqi al isyaan wal fitan saxal ca la nga nekkoon ragal yalla ak ba yag mu dem ba yag sëñ mi ak jasaaka rabbu ko fii daare nii yahazaru tey ak ëllëg na la yàlla fay ko lim doon am nako ko téeméer rakk la daan na fi la melaw woowu mu am melo kaanu doxin woowu mu am bi khalis ko dara xoolal ma ibrahim Cheikh ibrahim tekki ko muy ñett témèr mo muy ñett témèr sëñ bi ne ko beral benn téeméer mu ber mu ne ko benn bi rasulullahi moo la ko jox benn bi sayyiduna abubakar benn bi omar benn bi ousmane benn bi al benn bi maa la ko jox ndax yónnee bi rasulullahi bi jaar fi man cheikh ibrahima Diop daal na ko laa tatlubanna min siwaahul fadlu sa taabin fal fadlu min xayrihi xat kaana masluuba waaye yow mi dang dangi foo jëm di wuti ngëneel yaa ngi koy romb fu lu baax nekkoon yàlla jël na ko jox kii di ahmadou bamba daana bi ma ñëwagut fi moom sama nopp bii bu ma déggee faas damay tiit ma déggee baxdaad damay tiit ngir ñeer leen waaye wasaara yaxbitu nii man kaana maskanuhu fi batni bagdaada aw fi misra aw léegi gaa ñépp a ma ñeer seeru ba booba file ak fee ku mel ni waa jëfa Tuuba Sëriñ Tuuba ba mu feeñee la waa amee ci suuf si wal mi tey dem na siyaa ki uruba ña ko toppoon defar na leen ba mu sootee lañu raw gaaña gàntoon ci xulóoba sëriñ tuuba ña ko toppoon defar na leen ba ñu sottee lañu raw gaay ña gàntoon fa cëróoba wuy leen jant baa ngi dem na ba njolloor jumileeram yi sori na till ki kooba sëriñ tuuba ba mu feeñee la Afrika ami xéewal Sénégal jël na lépp ndam fa dënoo baay Sëriñ Tuuba ba mu feeñee la Afrika ami xéewal Sénégal jël na lépp ndam fa baay gore leen sant yàlla ngir ki mu leen may le rasuuluy damoo keroog fa fa baay sëriñ tuuba kile taaral na der bu ñuul ba ñu xeeboon Europe ak ñooñ arab di raame fa tuuba kile moo yor ndono rasuulu mi nuy roy ku ko toppul du raw ëllëg te xuloo baay sëriñ tuuba kile moo saytu yool yi waaju ko soppul moom dana sooy buñ ko man da xaafatëroo baay bari ndam saytu sañ-sañam bu ko soobee moom dana seexal ku suufe woon féruloon ba gore leen sant daam ku wedd amoo jom te amoo xel te kiiluwul fa naroo baay gore sant daam ku wedd amoo jom amul am xel te kiiluwul fa baay Afrika fuñ ko xeeboon boo fa yóbboo ahmadoo mi mu doy ko ndam fa ndamoo baay Afrika fuñ ko xeeboon boo fa yóbboo doom mi mu doy ko ndam fa ndamoo baay Ahmadou gën ci nun wurus Mamadou gën pétrole